mbokk bi éviter mooy que ni sonn te doo fayeeku pour yàlla nangul la sa jaamu yàlla bu mën a doon ginnaaw ba nga nee jullit nga mooy faw ñaari conditions yi ci mooy li ngay def li nga def ko te yàlla rek tax waaye nga def ko comme nu ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam tey jullit ñu bari dañuy def erreur yoo xamante ni yonent bi saa alayhi mosu ko def jàngal ko saxaaba yi subhanallah ñi nekkoon ak moom Abu Bakr radiyallahu anhu Omar Othman Ali radiyallahu anhum ak saxaaba yi kenn mosu ko def waa lii yow yowmal qiyaam nga nar a dekki suñ la laajee lii yonent bi saa sallam def ko lan moo tax nga koy def lan moo tax nga def ko kan la ñu yàlla toppaloo mooy yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam te ñu bari boo leen laajee lu tax ngay def dañ naan ñoom de xamuñu gis nañ daal ñu koy def subhan doo dem benn téere fiqh ku weddi demal téere laajteel laajteel boroom xam-xam boo bëgg téere fiq téere diine ñu ne la lii nii lañ saa yoo exemple julli te da nga ñu bari buñ jullee ba pare taayo gis nga bay sëlmal dañ naan asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaam ñeen def nii lii amul sa loxo bul ko def nii bàyyi ko fi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah nga lii benn erreur la mooy def nii loxo yi lii bu ko def gis nga loxo yi fii nga sëlmal beneen erreur bi ñu bari dañ koy def ba léegi mooy danaa ni asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah muy ñaar ñaari erreur moytu ko kon bul def nii asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah rek asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaar ñett soo ba sëlmal asalaamaaleykum wa rahmatullah bul fa nekk di bind da gis ñoo xam ne dañu nekk après naan nii gis nga di bind ay biir ñenn naan nii gis nga lii déedéet nii amul bu ko def wala nekk fa di bind ñii naan nii gis nga jël seen loxo bind ñii ne ñii def nii ay kii tracé def nii ah ñii nekk foofu bind ay mbir gis nga bind bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musul def lii ñenn ñi naan nii seen baaraam seen baaraam bi fii téye ko di wax ñenn ñi naan nii di joxoñ ñenn ñi dugal seen kii mais lii yëpp yonent bi yàlla yoon sallallahu alayhi wasallam mosu ko def ak ku ko mën a def yóbbul ko def ndax lan mooy bu ñu la laajee nga ne mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu ko def saxaaba yi nga xam ne nitu aljanna yu njëkk yi mosuñu ko def kon yàlla nee nañu wa ma aataakum rasulu fa xudu wa ma nahakum fantahu lu leen yonent bi jox jël lu mu leen tere bàyyi leen allahu akbar borom bi subhaanahu wa taala wax ca suratul ahzab mu ne wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina quiconque désobéit à allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident koo xam ne toppul yàlla topp leen sa salam nee na réer bu biir kon bul ko def sooy julli defal lu bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam soo paree julli nga wax astaghfirullah ñetti yoon astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraam après nga def ñaan yooyu son jàll jàngale gis nga subhanallah 33 fois alhamdulilah nga wax ba mu 33 fois allahu akbar nga wax ba mu 33 fois muy 99 centième bi nga ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir yàlla jéggal la say bàkkaar yi des allahu akbar bu dee suba la ak timis nga jàng ayatul kursi yu benn yoon qul huwa allahu ahad ñetti yoon qul an rabbil falaqi ñetti yoon qul an rabbin naas ñetti yoon bu dee suba la ak timis bu dee tisbaar takusaan ak gee ayatul kursi yu benn yoon qul huwa allahu ahad benn yoon qul an rabbil falaqi benn yoon qul an benn yoon bul fa nekk di bind di def dara dinañ ñëw incha allah ci yeneen vidéo yi expliquer aussi la suite nànk-nànk yàlla na yàlla dégloo ñu diine yowmal qiyaama ñu bokk ak bi sallallahu alayhi wa ci biir aljanna ak suñu famille ñun ñëpp amin ya rabbi